bismillahi rahmaani rahim mbokk yi tey xam ngeen ne tabbi nañ ci fukki guddi yi gën am solo ci at mi te mooy fukki guddi yi mujj ci weeru koor waxtaan yi weesu ñu ngi doon jàngat ak yéen ni yonantu sallallahu alayhi wa sallam daa dundee fukki guddi yi loolu nag la fa waral. mooy dafa am guddi gum daa wut wala gum doon wut muy laylatul qadr di guddi gu dara jaw guddi kattan guddi dogal guddi xatal eh, guddi gu kattanu la ba ëpp doole guddi yëpp dogal ndax ci la yàlla di teqale mbir yépp faram fàcce ci dogal yëpp fiiha yufraq kullu amrin xakim guddik xatal ndax suuf dana xatak malaayika waaye on top of all that guddi la goo xam ne ci la yàlla wàcce alquran inna anzalnaahu fi laylatil qadr di guddi gu barke barke du jëmmu mbokk yi waaye lum ne ñu xam ko moo tax guddi gi li muy gàtt gàtt jaamu ca yàlla ëpp na doole jamu yàlla goo saxo junney weer juróom ñetti fukki at ak ñetti at ak ñeenti weer guddi la goo xam ne mbokk yi guddi gu jara wut gu jara sonne xanaa kon question bi mooy kañ la kañ la benn la ci fukki guddi yi mujj ci koor bul nangu muk ñu tënkal la genn guddi rek ne ci la ñuy célébrer laylatul qadri lu guddi ga am yaakaar ne laylatul qadri la muy lu mel ni guddik vingt-sept am na yaakaar lool ndax yi ci boroom xam-xam yi tudd yàlla tudd na laylatul qadri ñetti yoon te baatu laylatul qadri boko ko compté juróom-ñeenti la trois fois neuf vingt sept yàlla ba mu waxe inna anzalnaahu ba ci salaamun hiya vingt sept la waaye yooyu yëpp du tax nga sàggane yeneen guddi yi ndax yonentu mi yàlla xamal lu kenn xamut ci ñun toogu moon rek ne vingt sept la waaye guddi gu nekk ci fukki guddi yu mujj yi daf ca daa jaamu yàlla jaamu yàlla ak tey la laylatul qadr guddi goog na bu jotee lan lañ war a def bokk na ci yi ci gën am solo fexe ba guddi gi yépp dund mooy doo ca nelaw kon na ku mën a xañ boppam nelaw ci fukki guddi yi na ko def soo ko mën nga def talaayo li nga mën te jafewul nag ci koo xam ne fas nga ko yéene ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam su guddi yi duggaan rek axyaa layla wa ayqada ahla wa shadda mizarahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ni ko ndey Aysatu waxe wax na ne it guddi go ku ci taxaw di julli ngir gëm ak yaakaar yoolu yàlla ak yiwam dañ la baal say bàkkaar yi nga jiital yépp ñi xadis yi dikkee ci buxaari dikkee ci muslim moo ndax julli rek lañ ci war a def déedéet bokk na ci liñ ci war a def mooy ñaan gannaaw nag ñun dégguñ yàlla yonantu dégg yàlla day aysatu mi dégg yonantu bi laajal nañu yonantu bu ñu dundee ba xam ne guddi gi guddi laylatul qadr la luñ ciy ñaan mu ne waxal allahumma ay yow yàlla innaka naka yow afuwun baxalaakoon nga maanaam yàlla du rek dafay pardonné waaye euh, baalam dafa exagéré fu toll ci bale la dëkk non seulement baxalaakoon nga waaye tuhibbul afwa danga bëgg ba danga xam nga nit dina la baal sax fekk dafa amul sa jot wala dafa amul pexe wala dafa la bëggul a topp rek yàlla nag dafay kontaan ci buy bale faafu ni kon nag yàlla nag ma baal alafu moo gën a foor téeméeri junni yoon maxfiratu ndax maxfiratu mooy yàlla jéggal la bàkkaar baa fi waaye def la suturaal topput la waaye afu nag daf koy effacé ba sax far def fa mbaax ñaan gi bokk na ci ñaan yi gën a am solo li ñuy def ci laylatul qadr kon nag bu la raw ci benn ci guddi yi nga xam ne ñooy guddi yu mujj ci weeru koor waaye nag bul yem rek ci ñaan bul yem rek ci julli bul yem rek ci jàkka ja guddi yi na ko sa loxo xam ci sarax na ko say bokk xam ci jokk na ko say wéyjur xam ci wut lu leen neex ak luy tax ñu gërëm na nga tuub na nga baalu yàlla waaye na nga sa heart nanga nga empty setal muccal laabal sa dënn sa xol ba daraay mbañeel daraay mbon daraay safaan envers qui que ce soit du ca nekk ñu ñaan sama borom tabaraka wa taala ci ñiy woor weeru koor ñu taxaw guddi weeru taxaw guddi laylatul qadri jaamu ca xeeti jamu yépp tam rek te moom rek mu tax te baal ñu suñuy bàkkaar yi njëkk ak yi mujj yi feeñ ak yu nëbb yiñ fàtte ak yi ñu fàttewut yiñ tay ak yiñ juum bi barakatil qur'anil karim wa xurmatil xabibi sallallahu alayhi wa sallam hada wa axiru dacwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa wa barakatuh